di ko gàttandu ndax waxtu yi euh, fu 17 heures 30 jotee rek dana dana dana génn euh, ànd ak euh, ñi nga xamante ne bii mooy mbokki boppamam ñu maasandoo ànd génn ñëw ci mbaar mu mag mi. fi mu toll nii nag dañ koo tërale noo xamee nii bis bu yàlla sàkk am na kuréel goo xamee nii mooy ñëw di ko teeru kuréel gi koy teeru bokkut ak kuréel gi nga xamante ne bii moo yor njàng mi ci biir mbaar mi. te tey jii boo xoolee lu mel ni ñii taxaw ci bunt bi di jàng nii mooy daara yu Rufisque kuréel bi mooy jàng nii te kuréel 1 gi ñoom itam ñoo war a jàng tey jii ngir euh, buñ duggee ci biir mbaar mi euh, waxtu wi ñuy jàng kuréel 1 bu Rufisque moo koy jàng waaye teeru bi gàttal bi ak gunge bi loolu kuréel 2 bu Rufisque itam ñoo koy def ñu ci sant sëñ Tuubaa nag ci daara yi ni organisé woo nga xam ne daara joo jël rek li mu kuréel yu bëri ña nga fa njàngam xasida kenn ku ci nekk di ci góorgóorlu di ci sonn di ko di fexe ba saa su ne lépp lu mu laaj ci sellal ak rafetal ñu mën ko maasi di ko def ak baram Tuubaa kon rek mu ngi fii ci euh, buntu kër buntu néeg Seex mu kon ma dem ah bisimilah baak sëñ kon ni ñu la ko woon ni ñu ngi fii ci kuréel de Rufisque ñoo nekk di jàng xasida yi di teeru Seex Muhammadu Muntaxa Mbàkke kon ñu ngi war a dégg ci biir tamit heure Rufisque tamit ñoo war a jàng jàng mi nga xam ne mooy njàng ci biir mbaar mi kon nga ànd yéen dugg ci biir mbaar mi war na li fi xew muy njàngu xasida mi barke Sëñ Tuubaa a waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Modou maa ngi lay dégg sëñ Modou. waaw sëñ Modou ñu ngi leen di dégg bu baax a baax. waaw jërëjëf sëñ Modou ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant bu baax ci teewaay bi nga xam ne tamaat amaat nañ ko tey. muy juróomi fan ci weeru Ramadan dëppook euh, bisub 18 euh, avril 2021 ah, muy bisub dibéer boo xam ni tey jii am nañu tawféexu jataayaat euh, ak sëñ Mountakha Mbacké kon ni ngeen ko gisee ci image yi nit ñi daanaka salle bi fees na te sëriñ bi yegg seegul daanaka xëy na fii ak juróomi minute wala juróom benn minute ci lay door yegg si tey nag ñu am tawféexu dalal ki nga xam ne mooy sëriñ Fallou Ndiaye muy kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah bu Rufisque euh, ñoom nga xam ñoom ñoo ay njàng mi euh, xam ngeen ne démb waa daara Thiès ñoo aye woon njàng mi tey nag ci bisub dibéer gi waa daara Rufisque ñoo ko war a aye euh, ma am tawféexu na dalal sëñ fàllu Ndiaye ni ma leen ko waxee léegi moom dana leen jottal li nga xam ne mooy programme njàng mi ñoom li ñu war a jàng ak li nga xam ne mooy ñi nga xam ne war a gàttandu sëriñ bi ak gunge ko kon sëñ Fallou ma jot jox la micro bi nga jot li ñi nga xam ne ñooy topp seen jataay bi li nga xam ne mooy programme bi ngeen ñu andil tey. jërëjëf sëñ Mansour ñoo ngi lay siyaar bu baax di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ñu nekk muy shahru Ramadan di weeru koor di ñaan suñu borom defal ñu ni ñu ko tàmbalee suñu borom may ñu tawfiq bañ mën koo yeggale ci jàmm di ñaanal mbokki jullit ñëpp waaye di ñaanal suñu yaakaar di ñaanal suñu yaakaar jii di Cheikh Mouhamadul Mountakha. suñu borom yàggal ko fi te mu wér suñu borom yàggal ko suñ kanam te mu wér di ñaan ba liggéey bii mu tàmbali di ko defandoo mbokki taalibe yëpp suñu borom may ko tawfeex ba mu yeggale ko di ko ñaanal mbokki jullit ñëpp di ñaanalaat suñu jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ àndaloon liggéey bi ci at yi yëpp te mu nekk ci barsàq yu kawe di ko ñaanal suñu borom lii ñu fi dund ci ay xasida yàlla na ko fekk foofa ànd ko mboolem mu fa tëddandool ci darajey Seexul Xadim di ko ñaanal mbokk jullit yëpp kon nag sëñ Mansour dañuy daal di comme waxtu bi mayuñu ko ñu dugg ci programme bi rek kon euh, tey ñu ngi indi euh, nuñ ko baaxoo di def juróom-ñetti xasida juróom-ñetti xasida yooyu giñ ci giñ ci njëkk a tudd mooy yaa day fi giñ baaxoo di ubbee yaa day fi euh, waa kër sëñ Masamba ak zallat wajhatu lillahi hamdan sëriñ alxaaji Cissé ak midaadi wa aqlaami sëriñ Yuusu Ndaw ak bachara mi di di xaside koor bokk ci xaside yi jukki yu sëñ bi jukki woon jukkil ko daara ji muy xaside koor ñu koy jàng daaju isbu tarxee alaa inna nii arjo bokk na ci sëriñ Aliou sëriñ Aliou bokk na ci astaxfirullaahu asiim waatu sëriñ boole Mbay bokk na ci rabbi karimin waasion wayu faddilu sëriñ Seex Lo kon loolu mooy programme tey bi Euh, ñu tëjee ñaan gi nga xam ne baaxoon nañ ko tëjee muy farij bi jaay euh, ni nu nga ko waxee nag du ñu ñëw ànd nañoo comme niñ ko baaxoo def kuréel gi nga xam ne mooy gunge sëriñ bi saasu ne di ko di ko di ko di di ko gàttan di ko di ko gunge ba mu ba mu dellu ci fam fam barabam tey ñu ngi ànd ak kuréel de Hizbut Tarqiyyah bu Rufisque kon ñoom lañu àndal tey kon ñoo ngi santaat bu baax sëriñ Mansour di leen ñaanal yéen ci liggéey bi ngeen nekk suñu borom kàtt na leen ci doole leen ci barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf baax na jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay sant bu baax defe naa ne mën nañ laa bàyyi nga delluwaat ci kuréel gi ndax liggéey baa ngi lay xaar demal côté bal demal wattu bi demal na la kon loolu mooy li nga xam ne kon andil leen lañ ko kon dégg ngeen ko kuréel Rufisque ñoom ñoo aye ñooy aye njàng ñooy aye tamit euh, da gunge sëriñ bi ak dalal ko ba mu yegg si ci li nga xam ne moom mooy biir salle bi euh, kon ñu def ab tënk rek kon li nga xam ne noonu lañ ko doon defee bés bu ne euh, mooy andil leen ko li nga xam ne mooy ñiy suivre seen émission yi en français Euh, fidèles téléspectateurs de Al Mouridiyyah bienvenue encore dans cette journée de Ramadan ce cinquième jour du mois de Ramadan et nous sommes un dimanche euh, qui est le 18e avril de 2021 et aujourd'hui encore un kuréel sera à l'honneur c'est le kuréel de Rufisque euh, qui sera chargé de déclamer les khassaïd devant le vénéré Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké et c'est le kuréel 2 de Rufisque également qui aura la charge d'aller accueillir le khalife et de le raccompagner moment de la déclamation, quand la déclamation sera terminée. Donc euh, c'est Rufisque qui sera à l'honneur et euh, pour le raccompagnement également pour euh, la déclamation. Aujourd'hui encore, vous l'avez remarqué, une heure avant l'arrivée du calife, la salle était déjà pleine et on se rend compte que c'est un, un moment que personne ne veut rater et le décor également montre qu'il y a une, une réelle adhésion il y a une réelle euh, adéquation entre ce qui se passe et ce que les gens ressentent. De sorte que donc aujourd'hui encore les gens sont venus en masse. Euh, il faut le mettre sur le compte du week-end certes, mais il y a le fait qu'également chaque jour personne ne va rater cette prestation. Donc c'est un moment très fort que nous sommes en train de vivre et on voit la concentration qui est à son comble. Les gens sont pressés de voir le khalife arriver parce que son arrivée signifie le démarrage de la déclamation. dans un programme qui a été choisi. Alors c'est le moment également de faire un petit éclairage sur le choix de ces euh, parce que nous l'avons dit hier, le terme courriel va s'inviter beaucoup dans nos propos parce que aujourd'hui encore, euh, ce sera une histoire de courriel, une histoire de déclamation, une, exclam, une histoire, n'est-ce pas, de euh, béatitude, n'est-ce pas, née de cette déclamation suave qui, a, qui sera faite par les courriels successivement jusqu'à la fin du mois de Ramadan. il faut dire que euh, le terme kuréel euh, de Rufisque il faut le mettre sur le compte d'abord de membres qui appartiennent à une cellule et qui appartiennent tous à la Daara Hizbut Tarqiyyah donc tous ceux qui sont là présents sont d'abord des membres de Hizbut Tarqiyyah ils sont membres de la cellule de Rufisque et ils ont été choisis pour leur déclamation après force répétition après force choix et prestation ce sont des gens qui sont habilités n'est-ce pas à faire partie de ce groupe nest pas parce que kuréel signifie simplement un groupe de chantre, une équipe de chantre. Et par rapport à la maîtrise et à l'expérience, il y a cette classification qui nous fait parler de Courel 1, Courel 2 ou Courel 3 même parfois, ou même le Courel d'adolescent. Je crois que c'est une précision qu'il importe de faire. Tous sont des membres de Isoutarkia, tous sont natifs ou bien sont en tout cas appartiennent à la cellule de fisc. La cellule de fisc, c'est un démembrement de Isoutarkia. une des représentations des Hizbut-Tarqiyyah basée à Rufisque. Donc quand on dit kuréel de Dakar, ce sont les membres de la cellule de Dakar et les membres du kuréel ce sont ceux qui ont été choisis par leur dextérité qui ont été choisis par leur maîtrise des mélodies qui ont été choisis par n'est-ce pas cette euh, cette maîtrise par rapport à la lecture et à la plasmodie de Khassaïd donc c'est pourquoi ils font partie de ce kuréel donc vous l'avez vu sur les images le khalife est en train de s'acheminer dans la salle dans une poignée de secondes il sera là et la déclamation pourra dé démarrer les gens n'est-ce pas piaffent d'impatience parce que l'entrée du khalife signifie le démarrage de cette psalmodie Donc, en ce cinquième jour de Ramadan, n'est-ce pas, le décor est le même, hein, l'ambiance est la même, la béatitude est à l'extrême, et on voit l'entourage du calife qui est là, n'est-ce pas, hein, marchant directement pour se diriger dans la salle. Et dès que le calife sera là, la réclamation va démarrer au grand bonheur de tous ceux qui seront là. Et c'est une déclamation, nous le dirons, qui durera une heure, d'horloge. Et juste après, le calife va rejoindre ses appartements, évidemment toujours sur la hein, sur le son et sur la mélodie, n'est-ce pas, euh, qui, ra, qui, sera entre l'accompagnement qui va le suivre juste dans sa résidence. Voilà donc hein, pour cette journée de Ramadan. Par rapport au décor également, le plus qu'il y a cette année-ci, il y a des écrans qui ont été programmés pour que les Khassaïd puissent défiler chaque vers, chaque écrit jusqu'à la fin, ce qui fait donc que outre le calife, ceux qui sont dans la salle pourront suivre la déclamation du début jusqu'à la fin. Et je crois que c'est peut-être une note qu'il faut euh, euh rappeler en marge maintenant de toute cette décoration. Ces vers qui arborent les murs et qui sont tous des vers qui parlent, n'est-ce pas, hein, du mois de Ramadan. Voilà donc pour la séance d'aujourd'hui et nous reviendrons dans une heure pour terminer la séance et fermer, n'est-ce pas, cet entretien. Et merci d'être là. Et merci donc à tous les téléspectateurs qui sont fidèles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.